fii ci dëkk Serigne Touba bi loolu kañ la dimanche boo ñëwee complexe ma awa muy daara ju mag ji nekk fii di daara sëñ Maxtaar Jenn sëñ Maxtaar Jenn nag def ko fi ngir jàng ak jàngale ndaw yu baari moo fi alxuraan ñu war a def nag tari alxuraan dimanche bii lu jëm ñu ngi ci programme bi nag xam gis ngeen baas bu rafet bi tàmbal nañu baas baas baa ngi nii muy waa xel comme baas ñëw nañu andi seen baas yu mag ñu ngi ci baas bëgg nag suba ak jàmm lépp mat nag bu dimanche ñu dugg nag ci bis bi xam ngeen ni fu ne kilifa dana fa jógee ñëw fekk si Serigne Matar ndax lii liggéey Serigne Touba la Serigne daare yi ñëw ndaw ñi ñëw mag ñi ñëw ñëpp ñëw ñu tari nag alxuraan wane liggéey Serigne Touba ci alxuraan waaye lii ñaanuk Serigne Touba la ci alxuraanu karim kon ñu xam ne daal yëf yi mën nañ ñu tàmbali na fii ba dimanche ak jàmm noo ngi ci bés bi nit ñi fu ne ni da nga fay jóge ànd ak Serigne Makhtar bis bisu alxuraan bi addee ji ngeen gis Lamine Seck ku ko xam-xam léppam sëñ Maxtaar jenn la waaw yitteem yëpp sëriñ bi la mu bëgg sëriñ bi yemalewu kook dara te xam na ni sëñ bi yitteem yëpp alxuraan la ko bëgg lu ko lu ko bégloo jàppale ko ci alxuraan moo tax bisu tari bi la ñu waaj Lamine andi addi am sëñ Maxtaar ni moo la siyaaree lii nga defal ko ci bisu alxuraan bi di ñaan yàlla na ko yàgg woote xam na ni benn yitte rek nga am muy alxuraanu karim ku ñëw ci complexe bii gis li nga fi def gis ni mu taaroo gis ni mu yaatoo nga def fi lépp nga xam ne cëggaani mu ñu dara ba bitig bi ñuy jënd sax cëggaani mu ñu kon xam ne aussi yitte yëpp alxuraan la kon sëñ Lamine sekk nee na moo la ko ziare sëñ Mor gis nga teraanga ji Lamine Seck moo ko def addi sëñ Tuubaa nee na def ko ci bisu alxuraan bi ah waaw. <laughs> delloo ko kii. ne diggante sëñ Lamine Seck ak sëñ Makhtar Diène. ne kenn umpaleetu ko. gannaaw loolu loolu sax. gannaaw njëkk loolu. dañuy siyaare suñu maxtaar bu baax. ne dañuy siyaare suñu maxtaar jenn. di ko di ko ndokkeel. ci am solo bii. ci bis bu am solo bii. di bisub lislaam. di bisub lislaam. di bisub yoonu murit. di bisu yoonu murit. di bisub sëñ Muntaxa. di bisub Cheikh Mouhamadoul Muntaxa. mi nga xam ne. mi nga xam ne. fi nekkal Serigne Touba moo fi nekkal Serigne Touba. ca yitteem jëpp ca yitteem jëpp. di jàng ak jàngale di jàng ak jàngale. ak yar ndaw ñi ak yar ndaw ñi. li ci def. ne li ci def. ñëpp teg nañ ci seen bët. ñëpp teg nañ ci seen bët. yitte jim ciy doxee. ne yitte jim ciy doxee. ñëpp teg nañ ci seen ñëpp teg nañ ci seen bët. Serigne Maxtaar nag. ne Serigne Maxtaar nag. xam gim xam loolu. xam gim xam loolu. ci jàppale seriñ bi ci liggéey bi ci jàppale sëriñ bi ci liggéey bi. te xam ne mënta feete fenn sëriñ bi. te xam ne mënta feete sëriñ bi fenn. lu dul ànd moom ci bëggug sëriñ Touba lu moom ci bëggug sëriñ Touba gi. te mooy jàng ak jàngale. te mooy jàng ak jàngale. moo tax mu def fi lii. moo tax mu def fi lii. ginnaaw daaray alxuraan jee nga xam ne. ginnaaw daaray alxuraan jee nga xam ni. 2006 la woon ci nekkug sëriñ Saliou. 2006 la woon ci nekkug sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacké. ci ñaanuk Serigne Saliou Mbacké ci ñaanuk Serigne Saliou. barke ba di law barke ba di law. ba jur lii lépp tey ba jur lii lépp tey. ak yeneen yu muy naal yu newaat ci kanam. ak yeneen yu muy yu nekkaat ci kanam. ndax moom dundam gépp da koo fas yéene jeexal ndax sëñ Makhtar Diène dundam gépp da koo fas yéene jeexal ci alxuraanul karim. Euh, taax mi taax mi. établissement bi établissement bi. complexe bi complexe bi. niñ ko liggéeyee niñ ko liggéeyee. qualité liggéey bi qualité liggéey bi. boo ko xoolee da nga xam ne boo ko xoolee da xam ni. am yéene ci alxuraan ko am yéene ci alxuraan a ngi ni ndax lii kat. ndax lii kat. fi mu mënoon a dem bari na. fi mu mënoon a dem bari na. fi mu ko mënoon a def bari na. fi mënoon a def bari na. mu koy jural leneen loo xam mu koy jural leneen loo xam ni. koomum adduna lay doon adduna lay doon. waaye dana lépp delloo sunu borom waaye da koy delloo sunu borom subhaanahu wa taala. di ci xaar nag fayuk sunu borom. rawatina mu def ko ci dëkk. rawatina mu def ko fii ci dëkk Serigne Touba nga xam ne Serigne bi amul dul moom. kon ñu ngi leen di sant. sëñ Lamine waaw ne di delloo sant nag sëñ Lamine Seck. teraanga ji nga defal sëñ Matar. ne Lamine Seck sa teraanga ji nga defal sëñ Matar muy sa addee joo ko andil ci bisu alxuraan bi. yow da ngaa baax rek. ne Lamine yow da ngaa baax. moo tax nga def lii. moo tax nga def lii. waaye sa digganteeg sëñ Matar. ne sa digganteeg sañ Matar. ñun ñëpp xam nañ ko ñun ñëpp xam nañ ko. lu baax nga ciy wax. lu baax nga ciy wax. moom nga ciy def. moom nga ciy def. moom nga ciy dox. moom nga ciy dox. bari nañu baree bari. bari nañu baree bari. ñu am leen teg sëñ Matar. am leen teg sëñ Matar ci sag mbaax rek la ak ci sag yaatal ak sag yaatal lu la sëñ Mataar mën a defal lu la sëñ Mataar mën a defal ci sa jëmm ji ci sa jëmm ji yayoo ko ci moom yayoo ko ci moom ndax lépp lu mu la defal rek. ndax lépp lu mu la defal. yaa taxaw taxawaay boobu yaa taxaw taxawaay boobu ci moom. yaa jëf loolu ci moom yaa jëf loolu ci moom. xaar loolu ci moom yaa xaar ci moom. kon lépp lu mu la defalagul kon lépp lu mu la defalagul rek. daa egseegul daa egseegul. waaye yéene sëñ Matar ci yow waaye yéene sëñ Matar ci yow. ñëpp xam nañ ko ñëpp xam nañ ko. lii nag na la ko defal lii moom des na la ko defal. ci bisu alxuraan bi ci bisu alxuraan bi. barkeeloo ko barkeeloo ko. fasal la ay xéewal yow tamit. fasal la ay xéewal. ba déwén bu koy defaat heure bii. ba déwén koy defaat heure nga yeewal fii ay nag yu bari sëñ Matar yàlla mën nag yi maa def ci bis bi. Eh, xam da naan nag yi maa def ci bis bi. barke Borom Xaan. jërëjëf. da ngay ah, iñaan hmm. day lekk jëf nit ki soxla di mat loolu waxee sëñ Tuubaa la waaw kon nañ góorgóorlu baax li nga nekk daal képp ku nit ku baax mm-hmm. te bëgg lu baax mm-hmm. bu la fa rombee dong waxuma laa mu xam la mm-hmm. xolam dina sedd yàlla na yàlla sàmm la te barkeel bu baax ci daraja Cheikh Issa Diène mi bokk ci barkeb Serigne Ndar suñu xol sedd na bu baax jërëjëf jërëjëf am solo la def ci alxuraan bi jërëjëf mooy waa njeen nag lagan suñu mbokk njeen na yaa ngoog waa kër sëñ jërëjëf mbokk yi xam ngeen ni nag ñi ngi ànd ak Tawfekh Production ci bis bu am solo bi nga xamante ni ñu ngi ko mal di ko waajal ti bis bi nga xamante ni bis bisu alquranul karim Serigne Makhtar Diène di ko amele fii ci Mbusoobe ci internat bu mag bi léegi nga xamante ni mi ngi ko tuddee complexe soxna maam awalo Lo mbokk yi bis boobu nag xam ngeen ni dimanche rek la incha allahu rabbi sëñ Makhtar mi ngi woo xarit yi wëllëre yi am di jàmm mboolem koo xamante ni sëñ daara alquran la wala kuy bëgge alquran wala ñañu alquran rawatina jullit yàlla yi rawatina murit Serigne Touba yi mbokk yi bu ko kenn tay sëñ Makhtar mi ngi woo xarit yi wëllëre yi am di jàmm bi mboolem koo xam ne ne soppe alquran nga sëñ Maxtaar mi ngi lay woo ci bis bi dimanche lay lay doon incha allah mi ngi amee fii ci complexe soxna maam awlo ci daara ji ci école bu mag bii nga xam te moom la def fii ci mbusoo bi fii ci Touba incha allahu rabbi jërëjéen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu ci jàkka sëriñ xabbaan boo ñëwee en face boo ñëwee ci arrêt bu njëkk bi foofu la boo ñëwee da nga fekk daara ji waaye da nga dikk fekk nag teewe alquran ju rafet di nga xam ni moom lañ fay jàngale muy mu Serigne Touba ci alxuraan boo ñëwee ay Serigne daaraa nga fi di jàngale njàng mu baax waaye boo ñëwee daal kenn du la nettali yaay xamal sa bopp kon bis baa ngoog na ñëpp waat muy Tawfekh ju rëy kenn xamul fo mu